dina wopp ji ak sunu fi loolu def naa ne moom mooy ñaari sentiment yi nga xam ne am naa ko. Eh, docteur bu toogee dégg nañu njiitu réew mi ñu ngi mm-hmm. ak nañu jàng mi wala boog tëj nañu daara yi tëjal yi toll ci ñetti semaine mm-hmm. sentiment jàngale ko bi tam ci loolu la lay doon. yaakaar naa ni loolu docteur Massamba wax dama koy partagé ak moom. Mm-hmm. ndax eh, ñun ñaar ñëpp ay jàngalekat lañu te kenn ku ci nekk jaaxle googu nekk na ci yow. waaye eh, ni mu ko waxee rek gone bañ a xam ni école dafa tëj. waaye xam ni dafa am lu dal ci Sénégal mbas mu fi dal mbas mi nag euh, li tubaab di wax inconnu da cee bari ndax mbër moo xam ni euh, daanaka àddina wëngël képp fenn fu ci nekk jaaxal na leen ca mbër moo xam ni kenn gisu ko jàkkaarloo ak moom mu doon lu métti métti leneen li ci tegu loo xam ni kenn xamul kañ lay jeex ak fan la jëm jaaxal na tamit doomu aadama yi kon ma yaakaar ni rek euh, en tant que jàngalekat. en tant que gëstukat ni ñu ko gisee rek mooy loo xam ne jaaxal na réew mi waaye yaakaar naa ni bu ñu booloo nekk wenn say nekk benn yaakaar naa ni dana ci am loo xam ni dinañ ci am saafara incha allahu rabbi. waaye boo déggee am ñu taxaw naan amul ci réew mi loolu moom sa sa wax ci lu jëm ci ñoom lan xam nga euh, li may wax ni defe naa ni docteur Massamba dana ko xam xam nga. Mhm. professeur Mamoussé Diagne day wax l'ordre de la parole. xam nga ñun suñu société bi ñu nekk dafay une société l'oralité maanaam. daanaka bind bi yeex na fee feeñ bu ñu soxlaa dara ci dëmm mu ñi lañ ko daan jëlee euh, Pa Maguette ñëpp daawuñu wax mhm. euh, daawuñu waxe fépp ndax li ngay wax nit ki ak li ngay wax nit ñi bokkuñu mhm. ñi daan wax it kenn ku ci nekk dafa am foo daan waxe am na ñoo xam ne bu buur taxawee ñooy ne ci wetam am na ñoo xam ne buñ dee xare ji ñooy tëgg am na ñoo xam ne buñ nekkee ci am tëgg wala leneen ñoo ne ci société bi di wax mhm. waaye lii nga xam ne moo am tey lii docteur wax sànq rek képp ku ko weddi dalaa dalul waaye yaakaar naa ne muy réseaux sociaux yi muy ñi nga xam ni soit dañuy waaraate wala ñu yor seen làmmiñ di wax war nañoo xoolaat seen bopp xam ne am na loo xam ne waxuwul ndax am réew bu fa dara dalee ba nga xam ne kilifa diine yi ku mel ni mun Muntaxa ñi di ko ñaanal yàlla bu baax a baax mm-hmm. deux cent ku ko yëkkati loolu weranteetuñu ko kon ñu ngi ñaan ñëpp ñu ànd ak dal ca xam lu muy wax ak fa ñuy waxe Ndeye tey de moom bu ma sañoon moom damay def dégloo point com teewlu point com parce que boo toogee ak ay kàngam moom sa wax warul bëri. waaw loolu moom dëgg la. waaw tey moom bu ma nekk mbër bi cëpp cëpp xanaa rek pour une fois man vraiment damay féliciter le président de la république Macky Sall. parce que def na taxawaay na taxawaayu kilifa taxawee taxawaayu njiit. ak ku ay sàmm ndax njaboot gi mooy la nation sénégalaise te Sénégal toll na foo xam ne. terme nation mooy benn askan wi maanaam askan wi nga xam askanu Sénégal dañ ko war a jëfee ci fànn bu ne bu feebar taxawee fii laa faree fii laa gisee loolu amul njëriñ ndax balaa nga naan naan ne fa loo wax rek da nga koo tal ku amul wér talatoo dara loo mën a taxaw ba ne fii laa fees dafa nga am sago wax ko lii nag mbiru sago la ndax jàngoro bu wàcc si réew mi la kon ñun ñëpp war a joxante loxo mesure yi nga xam ne président jël na ko bu ko jëlutoon na mere ko kon fa mu fa mu dóor foofu la ndax li mu def pour sàmm askanu Sénégal moo ko tax a jóg moo tax damay jàpp ne lii mu def nii c'est une mesure sanitaire te duñ def lu muy accompagner ko ci duñu fi toog mukk di critiquer état nii la wala déedéet taluñu ko ndax lii balaa bu wàcc la te mën na laal ku nekk kenn muccagu ci tànk que ñu jeex na rek bu kenn jàpp ne mbir mi euh, euh, nekkul loo xamante ne soxal na la euh, li mu a wax daal mooy nañu joxante loxo xale yi nag trois yi wax ni du vacance parce que lii bu du jàmm amoon duñ leen ko jox c'est parce que am na lu lu ëpp mbir ñu doole ñu bëgg a jóg faagaagal dañ ci profité lu jëm ci cours yi ñu koy gëstu li nga xam ne moom la ñu perdre woon wala retard bi ñu amoon ci études yi ñu mën ci profité rattrapé parce que kat njàng comme ni ñu koy waxee saa su ne yéen a ñu koy dafa am âge dafa am moment njàng day weesu ñoom ñu toll si jàng li leen ci war yëpp dañu wàccoog moom ba nga xam ne lii moom dañ ci war a profité pour di dem ci ay yenn barab yi di foo wala def leen te duñ leen ko may parce que rassemblement moom la ñuy tere. Euh, macha allah euh, wax nga sargal njiit réew mi loolu moom ñëpp la war fi ñëpp la war ànd ak moom ñàkk ànd ak moom ci am parce que tamit dafa jël ay mesures am am solo euh, ñun def rek ñun dañuy def duñ ci duñ ci duñ ci wax na ko docteur. wax 200 millions yi nga xam ne euh, sëñ Touba sëñ Mountakha Bassirou yëkkati na ko def ko njiitu réew mi ko noonu it mu am ko ci ñoom ñu ko ko di ak seen i euh, ndaje ci wàllu diine yu mën ci mënti moom ba taxaw euh, diggante dëng spirituel ak temporaire foofu itam analyse u docteur bi lan la lan lan lay doon c'est-à-dire que jëf bi am solo jëf seen di jëf waaw loolu xam nga ndono la fi ndono la fi ndono la fi nga baal ma rek Euh, bala ñuy ñëw ci loolu sax nga baal mu benn seconde ci li nga laaj bàyyi la man ci ñiy wax naan amut ñooñu wax dof la ñuy wax ah. xam nga def boo seen waa kër dañoo dëkk ba dañoo génn dañu dem ngénte mm-hmm. dof bi ne bu ñu yóbbu ma rey liir eh, nañ ko bàyyi ci dëkk bi mu ne bu leen ma bàyyee ma taal dëkk bi dëkk bi dugg ci néeg waxtaan ne kon ko yeew ñu ci garab gi ci digg dëkk bi te garab gi amut car ñu mm-hmm. dem ba ba ba ba ba digg mu tàng jër mu ñàkk a tooy xepp mu xool ndeyjoor xool càmmoñ xool jant bi fi mu toll xool li ko dese tàkkusaan mu ne tey nag wax naa lu ëpp ku fi wax loo xam ne waroo koo wax nag nga jàpp ñu duma la dafa am foo xam ne nag ku bëgg yàq réew mi ku bëgg fekk nit ñoo xam ne ñi ngi jooy ñun am ndax dañu dund wala duñ dund feebar boo xam ne rey na ay junni junni nit nga koy fëggee sa dënn ak di wax loo xam ne waxoo lu fi yëngal xolu nit ñi ñu jox la li ci seen poos ku fi jéem a daaneel nit ñi di tuddub sëriñ naan feebar bi amul te yow ka fa toogal sëriñ bi joxe na ci ñaar téeméeri million ba pare ne maa ngi déglu njiitu réew mi li muy doon doon kilifa njiitu réew mi war nga am xel loolu nag moo tax ma ne la ndona sëriñ si fekk si nguur gi jàppale ko ndona loo xam ne dafa jiitu tey keroog ba sëñ Babacar di wax sëñ Mansour mu tedd ma radiyallahu taala anhu ba mu koy wax keroog naan ko demal màkk nga ñaani guerre bi jeex keroog ba sunu maam rawaan ngom di dajale kàngam ya ñu taxaw ndar di julli ngir seconde guerre mondial jeex keroog bi Serigne Touba di jël ngurdu ya di ko jox tubaab bi ngir xam ne loru tubaab bi bu ñëwee suñu lor lay doon keroog ba sëñ Saliou di jël milliard di ko jox euh, président Ablaye Wade ca mbënn ma loolu lépp fi la ñu fekk kon euh, ñun suñu réew mi du réew moo xam ne du réew tubaab ku fi jàng ci réew tubaab ci njàngum tubaab ba ñëw bëgg a tubaab tubaab loo réew mi duñ ko nangu dafa am ñoo xam ne yàlla moo leen joxub cër ñoom ñooy kenn réew mi ñoom ñooy tax nit ñi duñu tiit guddi ñooy tax nit ñi duñu tiit bëccëg ñooñu nag bu tolloo fii dañ leen war a diglu waaye bu toll ñoom bu ñu jëlee nag lu toll ne deux cent millions joxe ko buñ ko joxee joxe wuñ ko ci turu Touba. Uh-huh. dañ koo joxe ci turu umma bi yëpp. Uh-huh. joxe ko ci turu ñi nga xam ne ñëpp dañoo mel na ñoom. Uh-huh. mais teguñu dañ ci teg lu ëpp doole loolu dañ joxe ba pare wax jaman moomu ëppal solo joxin bi dañ ne joxe ko waaye ñi ngi déglu lu nu dénk mbir ci wax ñu tënk ci xam nga kon wolof def ne kenn du faj soxla ba pare dox yonent nit ki du la fajal sa soxla ba pare nga ko yónni ñu dem waaye kii doon sa kilifa ci ci ci doon sa kilifa ci nen sa wasi la nga am nga am jaaxle mu jox la ba pare ne la maa ngi lay déglu nga nga joxoon fa nga jëm mu bàyyi lam lam nasoon lépp fomm ko ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir nga am ci ndam defe naa ni réew mi foofu la ñu war a xoolee nit nag du maye bopp rocc la mi waaw loolu day dama koy wax mais bu ko defee ñu dem ci reef euh, dogal yi nga xam ne jiitu réew mi jël na ko xam nga tey am na yu ci yu ci teguwaat lu jëm ci vol yeeg dugalante beeg jëmante ba yooyu Euh, bu ko defee yow lu wër te wër mooy réew yu bari dañu ciy teg sa tànk ñu dem ko ñoom si lu wër si nekk bu ko defee boo demee ba gis lu mel ni am bu ko defee Sénégal tëb ay ay ay ay kiiwam da nga am vol yoo xam ne interdit ko ci diggante yenn réew yi nga ne lu bu amee tam lu lu baax ci réewu Sénégal la est-ce que foofu jàppoo ne état bi dafa déglu lenn ci li askan wi dëgg si leen ci mooy li nga xam ni yaakaar naa ni moo war a am. Mhm. Euh, Ndeye Fatou wax na ko sànq. remercier président de la république ci mesures yi nga xam ni jël na ko waaye tamit euh, réew mi opposition bi yëpp boo xoolee kenn ku ci nekk bu waxee rek danaan maa ngi gërëm président de la république ci mesures yi mu jël mooy li docteur Massamba Gueye doon wax naan dafa am foo xam ne bu ñu fa tolloo parti amatul tariixa amatul Sénégal moo taxaw Sénégal moo soxla wax nga dëgg mesures yi nag euh, boo demee tey France ñuy wax confinement boo demee tey Italie ñuy wax confinement maanaam nit ñi génn toog kenn dootu génnati boo gisee tey ñu ni euh, vol yi dinañ ko xool am na ci loo xam ni sax yaakaar naa ni war nañ ko xoolaat ci nit ñi ndax nit warut def loo xam ni moo ko tey ndax am nañ ci ñoo xam ni nee nañu bi ñuy ñëw xam nañ danoo feebar xam na ni xam ni da ngaa feebar nga jël euh, ay doom naan ko ba nga xam ne boo ñëwee sa température kenn du ko gis nga dugg si biir dëkk bi loolu yaakaar naa ne aussi lu doy waar la mesure yi nag yaakaar naa courage rek la te ñuy dem mesure yi di a ñëw fii ñuy dem lépp loo xam ni war na réew mi dinañ ci taxaw nguur gi dina ci taxaw ba nga xam ni bu soobee yàlla incha allahu rabbi dinañ ci taxaw bu baax a baax waaye dadul komba boo xam ni day combat benn nit li ñu wax ci tubaab nii c'est un combat multisectoriel et inclusif maanaam kenn ki du du komba kenn nit ñëpp a ko bokk muy parti politique yi muy diine ji muy fu mu mën di doon tey gis nga Sénégal nekk wenn say nekk benn bopp loolu moom la ñuy xaar ci réew mi yaakaar naa ne nag ni ko docteur Massamba waxee sànq rek il faut que genn kàddu ñi war a wax ñoo war a wax am na ñoo xam ne kenn warut leen a jox rajo bi ñuy wax ndax nit bu fekkee ne li muy wax lépp day doon musiba koo kenn waru laa jox kàddu dañu wax nag ni borom bakkan bu tooj ak gimun gi naa ci bu mu wax doon jàmm nañu jox ñi nga xam ne xam nañu ñi nga xam ne jàngan nu mbir mi ñu mën koo wax ndax loo xam ne kenn xamul fu mu jógee kenn xamul fu mu jëm ku ci wax war ngaa wax loo xam waaw euh, docteur waaw wax nga ko am ci ay kilifa yeneen parti yoo xam ne sax ñoom rafetlu nañ li njiitu réew mi def man démb rek gis naa Abdou Mbaye ku mel ne Abdou Mbaye moom bi nit koo xam ne nii ku nite la parce que nit nit li koy garabam te nite moo jafe humanité mais nit nite la démb gis naa ko mu def ci benn post Twitter di ko rafetlu donte ci opposition bi la nekk donte ànd ak Macky Sall donte lu bari dañ ko wax jëme ci moom bi waaye def na lu ab citoyen war a def di rafetlu ko Ndeye Fatou en tant que koo xam ne yow sa xam-xam màcc na jëm ci wàllu euh, politique voilà ci côté géopolitique mesure yooyu yow nan nga ko donc pilier cinquième pilier de l'islam bokk na en tout cas ci pilier de l'islam ci ku ko mën mu ne lii pare naa ko képp kuy jullit mu ñëw fii yëg si ci Kaaba ba ay picc sax ñëw di fa def ay tawaaf loolu la ci képp kuy jullit euh, ci képp kuy pour ñu ne suñu bu tëjoo ñu xam ne mbir mi moo ko laaj ndax feebar boo xamante ne na muy di ji da doon na mu def ba Covid 19 lañ ko tuddee maanaam dafa gun ci yenn rés xam lan moo koy saafara traitement yi ni koy def si en appoint rek grippe la ñu jël jël grippe sëkkat la ñu jël sëkkat fièvre la ñu jël fièvre maanaam euh, médecin du ma médecin du ma médecin mais euh, symptômes yi ñu moom lañ koy fajee mais amagul benn garab boo xamante ne dañ koo destiné li nga xam ne mooy Covid 19 kon foog ñu def ci ndànk foog ñu téye ci. ñun it réew boo xamante ne la suñu loxo jotul suñu ginnaaw suñu demee ba cas yi gën a explosé est que suñu médecin yi mën moo contenir loolu est ce que loolu dinañ dina dinañ ko attan kon foog ñu jël des mesures yoo xamante ne euh, du question dañoo bëgg a fermé wu wala dañoo bañ a jokkalante bitim réew waaye daf ñëpp a ko def. te bokk na ci moo gën du man kese lu jëm ci feebar bi ku ci nekk noo mën a def ba sàmm sa askan sàmm sa réew boo ko defee kenn du la yedd kon président lépp lu mu ci jël ci mesure rek ñun dañ ko war accompagner ndax tey jii bu feebar bi duggoon dëgg-dëgg buy laal ñu ci gën a ñàkk ci ñooñu lay njëkk faagaagal balaa yegg ci président kon président mesure bu mu ci jël nag xëy na bëgg a sauver ñenn ñi la waaye même personne ak ñi nga xam ne ñoo ko wër bu dee protection rek yàlla xëy na am na jumtukaayu àdduna yoo xam ne may na leen ko pour ñu protéger seen bopp loolu ku ko xalaat nag lu ñu jël ci mesure doo ko ci xalaat doo ko ci dem ci euh, li xam ne nag mooy comportement. Sénégal yi ci boppam lu jëm ci wàllu cet bi gis nañ nga ci doon def nga ci daan def euh, mais c'est vrai que Sénégal dëkk la boo xam ne nit ñi dañuy dundee dañuy dañuy dugalante moom bu baax euh, dañu ci transport en commun yu mel noonu waaye lu jëm ci wàllu cet ak sénégalais docteur Massamba waaw xam nga wolof def ne euh, baadolu mhm. buntu këram lay tawte day toog muy xiin mun naan xiim na. mu toog muy ngelaw. mu naan mi ngi ngelaw. mu toog muy wis mu naan mu ngi wis. ba taw ba sóob mu soog a daw di fatu. loola dafa bëri ci suñu jikko loo xam ne dañuy bàyyi bu mbir mi ëpp lu doole bu yem ni ñun dañoo bëgg a xoddiku bala noo lakkale lu doon ñu ne xoddiku mooy ñëpp ñu jàngoro ji dal ay nit a ko jëlee bitim réew indi loola mën nañ cee liggéey waaye bu demee ba jàngoro ji nag di di ak a ci biir dëkk bi coow day am léegi ne ñu set moom mooy nga mucc ci ndax li ñu wax lépp képp ku jullit nga xam ne war ngaa jàpp juróomi yoon ci bés bi war ngaa war ngaa takkoog buñ ne la sa raxasul ñu metti ci sa xol yow sa njàpp war nga ko xolaat beneen bi ci topp ñooñu bu leen nuyoo leen te bu leen joxante loxo képp koo xam ne xam nga suñ cosaan xam ne ñun firndeb nuyoo laaj sant la Jóob mu ne la njaay ngeen kafante fekk mu ne la jaw ngeen kafante joxe loxo ña ngi ko daan def sax lu ci boo xamee dañuy jëflante ngir firndeel ne am na lu ñu wax ba kàddu yi am na ci léegi bu dee jullit nañuy ñuy woote ku ne di fëgg dënn ne jullit nga jullit gi asalaamaaleykum lañ la wax kon léegi bu fekkente ne dañ ñoo wax loolu ñu bëgg koo def jafe-jafe am na loo xam ne am na problème kon kay ñun dañoo am dañoo am ñaar dañoo bëgg di set setu ganaar di sangu di sol yére yu rafet waaye li mu bokk ak nit ñi duñ ko defar kon wopp wopp joo xam ne daal salte koy koy koy lawloo bu lawee ci dëkk mooy nit ñi bëgg ñoo set te defe naa ne nag ñun kenn ku nekk ñun Sénégal la muy njëkk a def bu amee am néeg mooy jël cuuraay dugal ci biir bu génnee la muy njëkk a def mooy wut lu xet bu neex mu nekk ci kawam waaye bu duggee ci biir oto bu yéeyee bu yéeyee sànni bu bu xoolee sànni loolu nag moom mooy jikko yi nga xam ne danoo dem ci ba nga xam ne ñun yu bëri ñu ngi koy def maanaam ren sax dànd ki nga ki ki topp sa kanam tey bu na la waxee dàndal nit ki mètre boo demee ba mu indi jafe-jafe ci yow kon am nañ problème donc problème bu mag bu mooy defaraat suñ jikko yi defaraat jikko yi nag weesuut bu ñuy ngénte nit lan ko waxoon bu màggee mu koy def ma fi liir bu judd ñu ne yàlla na salte gisaguma fi liir bu judd ñu ne yàlla na tilim gisuma fi liir bu judd ñu ne yàlla na góor nekk góor jigéen liir bu judd ñu ne yàlla na bon yàlla na soxor loolu nga xam ne buñ ko li ñaanal liir nag nanu fexe ba ñun ñu doxee ko feebar bi daal li ma jàpp ne moo ñu ciy génnee mooy def nu njiitu réew mi di def njiitu réew mi moo jël dogal ñi nga xam ne ñoo am xam-xam ci médecine ñooy daje wax bi ñu bëggee tëj aéroport yi dañoo woo ñu ni ñu wax ak ñi yor tourisme ak transport borom xam-xam yi tënk jox ko kayit ne ko boo ko doxalee nii mu baax gis nga réew bu tolloo fii ñun tënku ko wax. dañ nañu bon bu ngeen di tisóoli ngeen taf seen loxo bés li ngeen di tisóoli di leen ci keneen. maanaam ñun ñuy ñun ñun ñuy ay bàkkaar teggil euh, loraange joo xam ne ñun koy def nit ay àq. ndax nag ñàkk a civilisé weesuwut. foo sëqatee ubbi sa gémmiñ ba mu dal ci nit foo tisalee ubbi sa gémmiñ maanaam yi ñuy def loo mooy yi nga xam ne nit bu nitee da koo war di def maanaam booy tisali euh, boo amul musuwaar def ko ci sa biir conc bu fekkente yooyu kenn war koo wax nit maanaam bu ñu bu baax a baax yi ñuy def loo mooy daal nite leen kon nag bu ñu yar ci nite leen kon suñu nitee di ko am na fu mu mu mel ne kon euh, épidémie bi dañoo wàcc ci di nite lu ko docteur waxee Euh, docteur la woon jàngalekat la c'est-à-dire est-ce que tey jotul tam ci programme scolaire yooyu ñu ci jàngale lu jëm ci mbirum euh, dégg nga ba nga xam ne loolu dinañ ko waxu a sax daara yu suufe yi waaye dañ koy yóbbu ba daara yu ci mel ne lycée yooyu bépp université sax bu ko jaree bu ko defee ñu koy jàngale ngir nit ki xam li mu war digganteem ak réewam mooy li docteur wax rek xam nga euh, ñu baal ma ci ñi ko war a wax mais dañoo nekk ci réew moo xam ne am am ñu dëgër bopp dëgër bopp weesuwul li nga xam ne docteur wax na ko sànq muy ay valeur yoo xam ni dañ la ko mooñaaleel nga xam ni waxtu wu ne ñu ngi la koy fàttali ca bu mbir taxawee nga bàyyi ko euh, dem nañ ba nga xam ni ak cet dafay manqué lu bare bare bare ci feebar bi wax nañ ni li jëkkee nga xam ne moom nga war a jëkk a def mooy di raxas say loxo mooy set set goo xam ni boo ko defee yàlla mën naa dogal yëf yi du yegg si ci yow mais nekk nañ ci dëkk boo xam ni dëgër bopp am na ci am na ci ñoo xam ni ñoo ko war a wax Euh, am na yoo xam ne du ñu du ñu wàccoog moom am na ci ñoo xam ne lu leen neex def euh, yaakaar naa nag na góor ga waxoon rek ni xale ba dañuy li may def kenn mënu koo faj waaye nee na képp koo dégg mu naa li may def kenn mënu koo faj dina toog ba ni li ma dal kenn mënu koo faj. ci mhm. li mu wax ni dañoo wopp nu nite parce que nit ak nite bokkul ndaamal gosaas dani doon buur doon bumi ca nite woo bañ a doon buur bañ a doon bumi ca nitee ma ko gënal. Mhm. kon nite leen wax ay jikko la. ay valeur la yoo xam ne bu ñu ko dugalee ci sa bopp bi nga mën a dem ak moom ànd ak yar ànd ak teggin waaye am na loo xam ne boo ko defee di nga lor sa bopp lor ñi ngay nekkal ustaas yi wax nanu boo xoolee ministre de la santé barki dem dafa sol aw dàllam dem seeti ministre parce que xam nañu réew mi am na ñu fi dugg sol aw dàllam dem seeti ministre des transports sol aw dàllam dem seet ministre de la culture et de la communication xam ne ñii ñoo yore aada ji ak cosaan li am na ci ñoo xam ne dañuy fent am na ñoo xam ne dañuy woy am na ñoo xam ne dañuy bind mu ne yéen kat lii danoo bëgg ngeen yóbbu ko foo xam ni ginnaaw bu ngeen waxee ñu dégg ko bu docteur Massamba Gueye waxee ñu dégg ko bu Babacar Mbaye Ndag waxee ñu dégg ko ñu ne yéen kat bëgg nañu ngeen fent ak wax ba nga xam ne ko mën a dégg loolu yaakaar naa ne Pape Magat mooy jéegu yi nga xam ni ñun ñëpp dañ cee war a teg suñu tànk pour mën cee dem pour yëf yi mën a dem ca kanam docteur Lamane macha allah gis nga day Pape mbir mi xewee ba tey Euh, télé yëpp ñu jaay lu ci bay nga xamante ne ay fajkat lañu ay médecin la ñoom yooyu waaye ñun dañoo préféré invité ñi nga xam ne yaakaar nañ ne suñu waxee nañ la dégg waaw ñi nga xam ne aussi seen wax jaar na ci yoon rafet na tey mën na dugg ci nopp daañu wax ci lu kenn yem ci luñ mu war a wax bu ko defee ñu jox la nga def sa analyse laata ñuy dem ci lu muy wax sànni nerf voilà. ñu di ay éducateur ndax ñaari docteur la. yàgg defar nit yàgg tabax nit parce que éducateur boo gis tabax na ay junni junni doomu aadama man nag euh, duma ci duma leen jàngal loolu waaye euh, li ñu soxla ci moom mooy lu koy wutale ak mala ndax bu dee lekk mala da koy lekk bu dee naan da koy def bu dee nelaw da koy def bu dee toog da koy def bu dee tëdd da koy def waaye lan mooy defe différencier nit ak mala parce que wax sax yuuxu yooyu yuuxu sax wax la kon ñu ñoom yëpp ñoo yem ci loolu waaye fi ñuy amee différence mooy comportement mooy manière mooy éducation nit nag éducation la ñu laaj ci moom mooy xam les bonnes manières yii yëpp ce sont les bonnes manières ay tissu yi def nii ay euh, sëkkat tamit. je jël mouchoir mouché yóbbu ci poubelle yooyu c'est des bonnes manières te ñun nit lañ dañoo war a nit a doon def yëfu nit mais suñu ko wàccee rek yem ak mala yi parce que bu dee lekk ak naan rek ñoom ñoom ñoo ci yem dayoo li ñu bëgg daal di ko xaar ci askan bi comme ni ko suñu ñaari docteur yi waxee mooy sénégalais yi delloo si waat tuuti seen xel xam ne lii ñoo ko mën a sàmmal seen bopp sa kaaraangeeg sa bakkan moom yaa yor càmm gi mën nañ la digal tegtal la waaye nag euh, liñ naan euh, limal na ca fekk loxol borom ku nekk yaa war a dimbali sa bopp dimbali sa njaboot fexe ba mesure d'hygiène yi nga xam ne dañoo élémentaire nga jël ko def ko muy habitude def ko muy comportement te mu bañ a yem ci maladie bi kese. parce que bu fa jógee it dafa war a doon loo xam ne Sénégalais yëpp dañ ko war a am comme attitude da ngay dox sax nit sànni dara nga far ko dugal si poubelle boo lëggee dootu ko def bu dee nit ñu jël daal ñu dëkk bi fexe ba doon ay nit yaxanal nekkin bi yaxanal dëkkuwaay bi parce que nature bi am moo ko agressé nit agressé nature mais nature dara. ci lu fi yàqu rek nit a ko yàq nit nag war naa jël darajaam yëkkati ko ba li ko yàlla may yëpp ba gënalee ko ci mala yi moom yàlla ne ko lii méritoo naa ko. na solo lool eh, bu ñu demee ay Rwanda ci naan dañ leen di raw ci setat fi ñun lu ñu ci raw mais la Rwanda kañ la bu ci ñooñu wax dëgg yàlla tardé dëgg dëgg dëgg def nañu. amee indépendance yàggul dara jóge ci guerre bu grave. voilà dem ba doon exemple. exemple bu ñu jóg ak ñu naan nga def ba jóg loolu moo am solo. loolu lay sëw boo boo mu mayee. ayca ayca ayca. Rwanda lan moo tax mu raw xam ne guerre waaso la. ñu rayante ba mu demee ba bëgg a attente ci seen biir dañoo jël justice tubaab ñu teg ko fële jël na seen maam daan atte muy gàccaat caay ñu ci seen bopp doxalee seen aaday bopp. tet gii ñu set. samedi yooyu ñuy bale dañoo fekkoon seen maam yi am aaday weer wu ne ñu def ko ñu tënk ko ci na ko seen maam di defee Rwanda xam ne lu ñu rawee tënku ci aada ak cosaan loolu rek lañ def dañu tënku ci aada ak cosaan fekk aada ak cosaan nag ñu doxalee ko ko ba mu ànd ak jamono ñun nag dañoo raté suñu indépendance lañu raté ñun bi dafa dem ñu wuutu ko du nguuru nag tant que jeexu fi kenn ku ne alal rek ngay jàpp ne na nga am ci alal ngay def ni sa dayoo noonu la toll mbedd mu mbeddum buur la kenn ko sa gudd buur fanaan fi mbedd baadolo dong ngay fanaan fi mbedd kon mbedd mu mbeddum baadolo na ko baadolo toppatoo baadolo mooy sànni mu tam ci mbedd mi ni ko soxna Ndeye Fatou waxee président buy dem ministre buy dem ñoom duñ taxaw ci mbedd mi ba fi soj wala poussière bi doon fi dugg kon ñun ñi nga xam ne ñooy baadolo yi ñun ñoo war a góorgóorlu nag ba bañ a nekk ci baadolo ndax baadolo du dara ak ndaajolo moo bon ak ndaajolo mooy ki nga xam ne fu mu jëfee foo ko séenee nga ne ayca bu ñëwee bu jëfee maam wax nga ne nag la ñu war te ñu li nga wax ne biir Rwanda baax na waaye day ñu ne Sénégal yoo xam ne mi ak yar ak aada ak cosaan bu ko càmbaree ku ne da nga mën a am jikko joo xam ne feebar bi bu ñëwee dana fi dugg waaye kersa lu fi duggee waaye gàcce lu fi génne. bu ko defee Ndeye Fatou kon dañuy jaar moom dem ci sàmm fii docteur ne woon fu ama am solo la ci côté valeur loolu day doon deuxième partie audition bi day fekk ñu dem ci sànni ma fu ñëwaat bu ko defee ñu tàmbale ko ci euh, docteur Massamba Gueye bu ñu ko laajoon lu ko gën a énervé ci guddi yi bu dee benn rek lan la. tey jii Sénégal boo ma doon laaj lenn loo xam ne bëgg nga ñu soppi ko génne ko ci réew mi mu dem moo yaradi ko indiscipline ku ne lu la neex nga def ndax tooñ ak duma dañoo ànd dugg ci réew mi. bi ma tukki bi ba ci fi tooñ bu buñ fa génnee rek yaradi ko ku ne def lu la neex man mu ne def lu la neex maa la gën a junee nga teg ci lu bon maa la gën a lu bon rek nga ci teg te maa la gën a gune lu baax nga ci war a teg man de buñ seppi woon indiscipline man defe naa ne Sénégal gii mooy gën ci réew yi d'accord la yaakaar naa ni xam nga man ak Massamba dañoo bokk loo xam ni daanaka fi naa ne ndax boo nee boo nee jikko yàqu yaradi ko naa ni yar bi ko dajee daal di taxaw ca ca jikko yi jikko yi ñoo yàqu xam nga dañuy wax ni doomu sàmm bañ ko yaru waaye daa fekkewul bañ koy waxtaan ndax daa yóbbu nag yi fi mu ne nii jikko yi ci seen bopp ñoo yàqu ba nga xam ni euh, daanaka euh, kenn ku nekk da ngay defe ni li ngay def nii mu am solo ca dama dégg benn kilifa gu mag benn bés mu ne tubaab yi ñoonu gën a am yenn jikko yoo xam ne yàqu na waaye dañoo xam la leen cay fekk gis nga tey jii tubaab bu burlee fa xam na la ko cay fekk mën naa ñàkk liggéeyam mën naa ñàkk permem mën naa dem ba nga xam sax dina ko indil loo xam ni bu soobee yàlla du ko def ñun nag fii euh, nit dafay def dara waaye su ko defee ba pare xam na ministre bi wala xam na sëriñ bi wala xam na diw xam na diw ba nga xam ne kenn ko sanctionné ñàkk a yar googu nga xam ne moo indi yaradiku gi sanction bi la war a def ca defuñu ko moo yées yaakaar na ni ko docteur waxee il faut xam ne nag ku yaradiku ñu teg ñoo ñu ko ñu tegaat ci yoon bi rek. soxna rek. <laughs> Ndeye Fatou. waaw man de benn phrase moom mooy énergie jamono yi. Hmm. mooy Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar loolu mooy waxi ndaxe ko Sénégal nekkatul benn benn bopp na Sénégal gis ay am ay nit di ci cabaru kontaan ci bëgg di ci wax di ko waxtaanee fii laa gis neex na ñu bëri fii laa gis nit ñi soxorante ci seen biir ñaanante bu xewul fenn Sénégal daal bu ñu benn bopp la man da moom bu ko fi jéemee dindi raxas xol yi tuuti. xel yi loolu daal moom moom laa gëm. yaa ngi wax la dëgg waa waxut. dañu ñëwal fa FM ñu naan ko Sénégal benn bopp la mu ne waaye du benn bopp fenn waaye leen loolu waaye Sénégal du benn bopp. bopp yu bëri la. te bu njëkk ba la moo di léegi. macha allah eh, bu ko defee kon ñu eh, partie boobu eh, denc ñun li ñu ci énervé fas yéene jàll ci deuxième partie émission bi. Euh, bu ko defee ñu dem day fàttali ci valeur parce que xam nga ko mel euh, nii du chaque jour nga koy mën a parce que xëy na boo amee tey masse bu ëllëgee doo am euh, doo ci ci ci ci wetam mais bu ngeen amee day baax ñu waxtaan ci valeur Sénégal nag toll na dëkk boo xam ne nii jikko yàqu na lool yàqu na lool yàlla bi fi noonu démb bërki démb fi ne ba tey nit ñi nag ñoo ñëw xëy na soppiku mel na leen wax nga sànq de nu mu tudd bi mais tey bu dee gis en tant que jàngalekat xale boo xam ne dafa jaar ci yoonu yàqu lan lay def ci xolu jàngalekat bi xam naa ne lu métti la nag. lu métti lay doon ndax xam nga adduna euh, soppi ko woon ndax reenu garab bi sampoon ca kaw tari féete suuf ba léegi nit ñi doxagul bopp ba léegi kon adduna na ko yàlla bindee woon noonu la mel waaye bu ñu bu ma gisee gone. tey ñu def ko projet économique maanaam kenn ku ne tey da ngay wut sa doom pour bu ëllëg mu yóbbu la màkk boo koy tànnal école sax boo ko tànnal école bu jikko yi gën a baaxee da koy tànnal ba nga gën a yaakaaree ne diplôme ba bu ko amee ci la salaire di gën a yokkee yow maanaam gone yi da ngaa bëgg bu ëllëgee ñu nekk ay distributeur automatique de billets de banque billet màkk billet rom ay ay ay tabaxkatu kër yow nga fàtte ne gone googu dafa war a nekk tabaxkatu jikko lu ma gën a métti ci Sénégal mooy liggéey ba guddee wàcc 11 heures gis gone gu amul fukki at ak benn muy dox ci mbedd bi gone goo xam ne amagul juróomi at ñu koy yónni muy ñaani xaalis gis nga ci suñu aada gone kenn du ko yónni mu ñaan kenn du ko yónni mu leb dañ koy yónni mu maye yónni ko mu fay bor mu xam ne maye ak fay bor mooy dëkk fu mu nekk nii man lu may gën a lu ma gën a tiital mooy gone yi nekk ci mbedd mi di ci fanaan gone yi ñu jël ni pot waxuma gone yi yalwaan de gone yi ñu wekk pot di leen exploité di jël xaalis bi di def sa poos di dundal sa njaboot say doom ñoom nekk ci ay école yu baax loolu li ma gën a naqare la li ma gën a tuutloo ci réew mi mooy projet bi ñu amul ci gone yi am benn projet ci gone yi pourtant ñu ngi góorgóorlu ñu baax ñu ngi baax ba léegi mais ñu bon ñoom ñoo dakk jëm ñu Facebook bëri ci nekk bi yor seen Facebook leneen li gën a mooy liberté gone yi ñuy bàyyi bala ngaa am fukki at nga am ñetti téléphone kenn xamul koy waxal kenn xamul koy jokkool léegi ñu bàyyi bëgg a bàyyi liberté jigéen lu ko neex mu sol xale bu góor lu ko neex mu wax rus nañ ko wax ñëpp tubaab la ñuy làkk peer la ñuy wax ndax peer peer defe nañ ne buñ la ko waxee tekkiwoo dara mais nit ki boo ne ko bàyyi ne ko nijaay dana am cër bu dox seen diggante ak yow en tant que jàngalekat loolu heure boo ko gisee dafay métti parce que kenn ku ne gone goo gis da nga xam ne sa doom la wala mu wax papa mas wala mu jaay mas waaye père mas moom naa ko ba tàmm naa ko nag man semaine kii sax père mas laa ko enregistré waaw dinaa ko dindi père fay moom jàngalekat la mel boo xam ne nii macha allah ñun dañoo jàngal baax mais ñi mu waxee ñi lay jàngalee c'est-à-dire que ñi mu waxee ñu lay jàngalee te c'est rare nga gis jàngalekat bu boole mën a yar mën a jàngale c'est très nga gis ko te loolu la ñuy séntu jàngalekat la man nit noonu lamal nit euh, macha allah noonu donc jàngaluñu demuñu lycée Limamou Laye mais euh, xam nañ ko bu baax a baax euh, ñu ñu ñu jox la nga ñëw ci diggante jàngalekat c'est-à-dire valeur yi valeur yi ko docteur waxee sànq xam nga man pour man Sénégal bi ñu commencé yàqu bi nga xamee ni jël nañ baax méngale ko xaalis ku baax mooy ki yor xaalis te loolu c'est très dangereux ndax. baax dañuy wax ni da ngay jeex tàkk ci yàlla ci mën ngaa bañ yor dara baax ak tàbbi bokkul bukki ba ñu ko waxee baax ak bon dina jël naa bon ñu ni ko tax mu ne daa noppale parce que euh, bu njëkk bu ñu lay yar man sama maam daf ma daan wax naan euh, doy na damaa def ni yàlla da ko bind ci wàcce wu ko ndax tey ku yor milliard bu gisoon tey jii sa fukki junni nu mu def ba jël ko rek lay def. mu ne ma noof laay daa war na wàññi tayal waaye da ko yokk ku la gën a noppalu tey moo gën a sonn ndax boo liggéeyul sonn mu ne ma waxtaan daa war na wàññi yabeel waaye da ko yokk gone yi bu ñu ne say yuuxu ndax dana xanaat bii ñu laa ah, waay wax leen waay dem nañ ba nga xam ne jikko yi li ko mën a delloo si nag muy man muy docteur Massamba muy sunu association bi nga xam ni léeboon ci leer lañ ko tudde lépp nañ ay ati at fii ci Ndakaaru ak ci réew mi ak bitim réew nga xam ne ay valeur la ñuy jàngale nga xam ne li maam doon joxe ñun dañ ko doon joxe li maam léyti daan wax maam jéeri mbay di ko wax jéem nañ ko génne ba di ko bokk ak nit ñi ay yoonu yoonu yoon ba nagado moom la ñuy liggéey mais bu ñu demee ba nga xam ne jël nañu xaalis ne ku yorul xaalis bokkoo ku yorul xaalis baaxoo loolu yaakaar naa ne société bu yàqu dong la indi kum doon jàngalekat nag metti na lool ndax ni mu ko waxee sànq rek tey jii euh, li waa ji waxoon ni les gens ne par ce qu'ils sont li ñu am rek la ñu ku am daal bokk nga ku amul bokkoo dem nañ sax ba naan ku amul bokkoo mhm. foofu nag bu fa société yeggee mhm. société boobu crise ba profonde na lool doy na waar lool ci yaakaar naa dellu si jikko yi mhm. moo nuy xam ne lii ñu ne ñu mën cee génn macha allah docteur Lamane la la la sama moom la na Sénégal doomu aadama xamuñu lu xamuñu lu lu lu lu suñu borom sol nit njëkk joxoñ baaraamu tuuma jigéen ñi ci kër yi ndax su ñuy bëgg wax lu métti seen doom yow sa bàyyi la ñuy wax kon terme bi péjoratif bi mu ci bi mu am ñoom ñoo ko njëkk jox maire yi léegi jigéen bu ñu bëggee wax seen doom bi dara rek sa bàyyi mais bu dee lu baax nag sa papa waaw su dee kontaan nag sa papa ngay dégg mais bu dee dangaa def li yow sa bàyyi moo fi def lii sa bàyyi bu ko defee xale dañuy jàpp ne koo sa bàyyi rek saaga la xas nga ko ñu naan papa wala père comme ñun jigéen ñoo ci am wàll kon bu dañoo ñun ñoo koy sànq yéen ngi wax si wàllu xaalis ak man de ci li ma xam ci olof mu daw mooy joxe lu ci nag du looy jox du loo du looy yor nit ki maanaam valeur yi nekk ci moom sentiment yi nekk ci moom moo ëpp solo la nga xam ne moom la yor di ko joxe ndax nit mën na di joxe te baaxul. ndax kon foofu baax amu fa ci dana xaalis euh, nit daal yaatal sa dënn nekk ak sa naw la doomu aadama yi ci nekkin bu rafet ci yéene leen jàmm jëflante ñoom lu baax. te du forcément da ngay jël sa xaalis foo toll rek di leen ko jox ñàkk nag bokk na ci li gën a indi lu mel nii ndax euh, xam ànd tukki ngeen sëkk xaalis wala ngeen euh, sëkk mbiru jigéen foofu yëpp ci jikko yi la rek ba tey bu jikko yu normale rek la ca war ñu def ko rek yaakaar naa benn jafe-jafe du am ñàkk nag moom day tax gor bi ku dul gor di ñànki ñànki googu nag moo indi yii yëpp ku am ñu jox na cër ku ñàkk duñ la faale damay nekk sax si famille que ca gën a ndaw moom xaalis lépp lu ñuy décider bu ci waxul kenn du ko décider taaw ba ne ca bukk ba bu ñu xëyee di ko romb bu ngoonee ñu ko fay jàllal lenn saa yi lu ci bëri muy xew ci kër gi dañ ko ko yëgal ci biti sax waaye duñ ko ko waxee fii parce que lan amul kon gisuñu moom mooy ene gisuñu supériorité mais li ñu gis mooy poosam bu néew te nit ñi bu xamoon ne joxe du ci poos ci xol la rek dinañu jàppee nit ñi ci liñ leen di ak ci nga xamante ne moom la macha allah soxna Ndeye bu ko defee yi dem nag ba ci euh, suñu tey presse bi. voilà loolu itam xam nga presse boo ko tuddee rek ci sa bopp ndax yaa ngi ci waaye euh, ba mënoo di wax jëmale si ñoom di koy wax jëmale si sa bopp itam ñi ñuy promouvoir tey cest à nga xam ne euh, ñaare bu leen éviter rek c'est pour ñu yarante ñu xastante beeg loolu dégg nga ku xawante sutura beeg yu mel noonu tey <laughs> docteur moom est-ce que yaakaarul itam ñooñu ci ñi nga xam ne ñooy yàq société bi ñoom ci lañ bokk. waaw xam nga bu njëkk ba ba nga xam ne euh, kenn ku ne dañ la tàggat sa métier booba euh, journaliste bi dafay jàppee boppam comme que am personnalité ba tey jii am na catégorie journaliste yoo xam ne xam nañ ne ay kilifa lañ maanaam duñ wutal duñ suufal seen waaye nag ñu jàngale mi amee ay volontaire ñu la presse bi amee ñu volontaire dugg ci wa ne nag naan diw dafa volontaire volontaire nag moom dugg ci loo mënul la am na ñoo xam ne dañoo volontaire dugg ci presse bi am na ñoo xam ne ah gis nañ diw am oto ñu ne dañoo bëgg am oto am na koo xam ne bëgg siiw jar tax jaral na ko moom mu fay ku ne corruption baa ngi fi waaye li gën a doy waar mooy am responsabilité xam tàllal micro nit la ca ne ndax wolof nee ne ki wax waxut ki jottalee wax kon dagam ki wax waxut ki jottalee wax te nit ki boo waxee ba pare mën nga koo dagg bu dul direct mën nga koo monter mën nga caa génneel la neex kon yow lan moo tax nga bàyyi boroom xam-xam ñoru la nga bàyyi boroom xalaat muy wax te boroom xam-xam moom boroom xalaatu ko te ndax ki ne yàlla nee na ci aaya sànnam ba daaneel waa ji ne ko man de gisoo waxu noonu kooku kenn mënut a wax ak moom réew mi nag boroom xalaat yi lañ bàyyi ñuy wax ñu jël boroom xam-xam yi sànni leen léegi lan lañ bëgg gis nga ba dagg amee ak kilit maanaam ba jaay vie amee maanaam nit ñi xamuñu ko ñu bëri da ngay gis ñu seetaan vidéo xamuñu ne kateg vidéo ba foo bësee seetaan moom fay nañ ko fukki dërëm wala juróomi dërëm gis nga ba loola amee ñuy njëkkante loola ca la ca la problème bi am léegi nag looy looy xool boo demee ci meeting ñaan ñu ba ma xam te ñaan ñu saagante booy invité ñam ngay invité ñaar ñu tàng ndax ñoo buñ tàngee tàng la ñuy dagg di ko teg ñu wër adduna bi def naa ne ku bëgg a defar nit yor lu toll ne euh, euh, euh, média da nga naan man bu ma demoon ci jàkka tey wala jumaa ku may doon ndax maay doon imaam ndax man maay doon euh, euh, nayim ndax man maay doon bilaal bi nodd yow yaay bilaal bi nodd ndax yow yaay biral ba nit ñi xam yow yaay segg information joxe ko ba nit ñi defaru li nguur day nëbb pour yàq yow yaa koy teere feeñal nit ñi jóg ngir jëlee ko fi moom ngir teg ko fi baax mission boobu ku ko am waroo ko caaxaane gis nga maternité bu fa dugal jigéen joo xam ne xamut luy valeur doom lan lay def gone gu juddu wafañ mbaa bëtam yàqu presque lu bu ko jox koo xam ne tàggatuñ ko ba mu am jikko yu baax gis nga jikko yu ci kër yi bu baaxee ko bone école de journalisme mënu ko defar ku baax seen kër rek baax ci rajo jàng mi du du ci du école ba lay formé pour nga nekk journaliste bu mag ak bu nangam ak mais seulement rek da ngay jikkoo yoo xam ne nii yu baax la boo ñëwee nag mu am jeexital liggéey ñu dem ci docteur moom it loolu xam naa ne am na ci am na ci xam nga li Massamba wax léegi nii euh, bi tooba saxal mbaamu sulli ba mu xewee ba tey ci li jikko yi yàqu ndax bu njëkk mécanicien bi bu ñu ko indee mu nekk apprenti euh, day jàng ba nga xam ni euh, patron dana ko jox kayit wan ko ni ko yokkat kat mokkal nga mu doo ko dem apprenti tailleur bi bu ñëwee danañ ko jàngal ba nga xam ni danañ ko ber waaye tey kenn xaaratu ko tey daanaka lépp looy def bu yeggee ci digg bi rek nga day mel togg ñorul nag dafay dem ba musiba daaru lay li indi moo indi tey formation bi nga xam ni moom la doon wax sànq nga xam ni daanaka am na ñoo xam ni formé tuñu leen nit nag buñ ko formé wul du xam li mu yor ca euh, li Thomas Sankara doon wax naan naan euh, soldat boo xam ne amoo culture sax moog daanaka kuñ jox arme boo xam ni euh, mën nga cee rey mën nga cee def leneen loolu dong lay indi te tey ji daanaka jikko yàqu loolu bokk na ci li nga xam ni yaakaar naa ni indi na ko comme ni mu ko waxee sànq rek yaakaar naa ni toll nañ foo xam ni waroon formé doomu adama yi parce que buñ la formé wul lu la neex def ndax jël presse wala nga jël leneen yàq nit ba kenn dootu ko mën a xool nit ñaa ngi koy def tey jàpp nit wax ci moom loo xam ne fekke woo ko professeur amadi Al Dieng yal na yàlla yokk leeram mos na ko wax benn bis mu ni bi ñu ko laajee ni ko lu tax tey jii euh, ci presse bi ñuy jekki-jekki am loo xam ne dafay safaan mu ni nous sommes passés très deer ak à quotidien bi mu nekkee hebdomadaire bu ñu waxee dara ci professeur Massamba Gueye am naa une semaine pour enquête pour xool pour laaj pour mëngale mais tey bu ne bis bu nekk lu scoop bis bu nekk am naa lu ma bëgg a génne lu bees di nga mës a génne loo xam ni doo ko xool doo ko doo ko doo ko doo ko doo ko càmbar ba su boobaa li ngay génnee dara du ci baax te kon yaakaar naa ni nañ ko xoolaat bu baax ndax yàq nit tey loo xam ne boo ko dugalee àddina bépp gis ko ca li wolof di wax naan fa yow a yegg du man yëgu fa mën ngaa yàq koo xam tey jii du mën a taxaw fu nekk di ko wax te loolu di nga ko lay yowmal xiyaam loolu yaakaar naa ni jar naa xool kon formation nañ ko defaat du rek journalisme waaye nekk na ci apprenti yi nekk na ci pour enseignant yi nekk na ci fépp nekk na ci docteur yi liggéey bépp ko am yaakaar naa liggéey daal képp ku ñu ko jox war nga ko jox ak xam ca loolu yaakaar naa am na solo trop. Ndeye Pape loolu sa domaine la moom. waaw mooy suñu waa ñu loolu nag ba ñu bëri ñu xam mooy ñi fi duggee rek ci volontaire parce que am na nag <laughs> ñi ko volontaire ak ñi jàng bañ bar bar leen mënuñoo mënuñoo doon benn volontaire nag moo indi loolu tey jii nga gis ci journalisme loo xam ne man en tant que journaliste des fois dama ciy am gàcce ndax li professeur wax léegi wàllu hebdomadaire ba mu fi am daan na permettre journaliste def rek parce que gis laaj bu la am na bind mais loolu jàpp journaliste léegi la ñu ko def xëy nag bokk na ci ñëpp bëgg a jiitu daf amee ba léegi kenn maa bëgg a jël paie coûte que coûte maa bëgg a nag moo ko moo moo ñu ko imposé ndax Sénégal maa koy wax euh, keroog Jean Meissa di kuma doy lu ci wàllu journalisme euh, ko lool daf ma a wax Ndeye Fatou sénégalais dinaa la wax nan la mel pour nga xam lan moo indi buzz as coupe ci journalisme journaliste dañoo xool li sénégalais bëgg ñu leen ko ci digg koog na yaramu noonu na ko ndeyam juree la def ku ne dina sëpp ci balkoom sénégalais maanaam lu mu bëggut nekk bëgg na di ko xool ci mutam ñëpp dañ koy sëpp di xool mais kenn bëggul nekk si place dof boobu loolu am bu yooyu amee lu mu gën a ñaawee bu ump kenn ñëpp koy bëgg a xam amuñ sago wu ne la kii def na fi kaw def bii nga ne sama yoon nekku ci déedéet bi nga ne ah nii demee kan la ak nan la naka la loolu Sénégalais moo bindoo noonu loolu nag la presse xam ba fekk ci loolu mais nag dem na ba foo xamante ne il faut ñu xoolaat gis nga benn phénomène kocc ñu naan kocc public mais loolu sax kenn waru ko rafetlu kuy xaaju suturam kuy dindi sag kooku société bu ko encouragé rek nga xam ne yéen dëggante kon yéen a wante wu leen jàmm dafa yoo xam ne ñu ngi ko fiy bàyyi muy dem tant que dalu la rek danga naan concerné ma waaye dañ ko war a taxawal balaa moo yegg si parce que luy raam ci ñag bu la jëm mbir bu jógee ñaaw autorité état war nañ ci jël seeni matuwaay dafa duñ jaadu bëgg nit na ci dëkk di ko ne kenn ko naka la loolu du yoon ñooñu bu dee dañuy def lu ñaaw ak du du loolu ñoom la concerné parce que nit tamit ku ne am nga euh, liberté ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ku nekk am nga sa vie privée muy man mi am na ci sa dund loo xamante ne bëggoo kenn xamal na ko kon nag nañu bàyyi li nga xamante ne mooy buzz ak wàllu internet loolu de avancé la tubaab moo ko créé waaye ñun dañu koy utiliser man jaaxal na ma su démb doon tey internet frontière balaa koy téye du dugg Sénégal caaxaan la kenn ku ne am nga loolu nettali. barke yàlla billaahi looloo leer kon nag nañu nañu nañu xoolaat métier bi ni koy defee chantage bi nga xam ne yenn journalistes yi ñu ngi koy def dañ ko bàyyi parce que bokkul ci métier bi. gis nga informé sa daf nga ko war a def dañu métier bi day bokk ci ñi tabax ñi day tax li nga xam lu am doole yow suba ba ñett ñu soote naa jox lu xibaar yi wax. kon nag comme loolu dem na ba toll foofu si ñun loo si mat nga yor mën yàq aussi. macha allah Ndeye Fatou xam nga wax kii bi ñu ko pecc ak yooyu. dañ tuddee ci nit ñi dañ di ne nga xam ne day bëri ay kii yooyu. mais mais mais man personnellement. Euh, ci loolu ma wax rek ne am na ko fi ñëwoon bitim réew di saaga nit ñi. nga xam ne moment bi muy saaga da ngay seet ne YouTube dafa dem ba tiit ci moom ba dem sax ba doon mujj tëj ay comptes mm-hmm. mais man personnellement du ma seetaan kuy saaga ndey. ak loo mën a saaga nag ba mu toog foofu di saaga mais ay ñoom saaga ñëpp xoolal ko mu ngi gis nguur xam nga kooku ak lu mën ci am créateur d'emploi la mu ngi béy waram la war ku ne ci biir réew bi saaga ay bàyyi jàmbur moom man bu amee ñu lay seetaan du ci bokk voilà ñu fa mu jëm fa mu jëm ñëpp la mu mel la waxee d'accord euh, artiste la bu weesoo jàngale jàngale ma yooyu waaye tey boo gisee scénariste yi itam boo gisee gars yi li def ci ay ci ay scénario di ko proposer Sénégalais yi ndax loolu lu wuyu lu ñu doon la ñun waaw xam nga dèjà euh, laaj bi mooy ndax scénario am na <laughs> ndax scénario am ndax ndax euh, maa ngi fàttaliku yàggul maa ngi tourné benn 31 euh, épisode mhm. benn série radiophonique buy wax ci wér yaram mhm. mu am ci comédien yu yu ma liggéeyal. li may wax nii ñoom Léegi Fall ñoom Ibrahima Mbaye Soppe ñoom seen bés si doy nañ ci seede. am na ci comédien yoo xam ne bi ñëwee dañoo nga yor texte war ko ñu ma lii lan la. man def benn pièce théâtre bu dee 52 épisode moom dañuy bind épisode yi. fii may wax ak yow di wax maa ngi adapté 15 épisodes yoo xam ne pareegu ma te fii ak pare mu kenn du ko tourné. parce que responsabilité la nit ki toog ñu mënta génne ko télé responsabilité la léegi nag bu fekkente ne da ngay dajale comédien yi nga am benn xel nga am naa benn idée lan la nga ne euh, Pape Maguette ak ak ak ak Soxna Ndeye dañu nekk couple boo xam ne dañoo am doom doom ji la waaye ci biir la bi doom ji dañ koy sànni rek après doom ji mujj mu màgg dem faju am xaalis ñun ñu bëgg ko jëm xam idée bi rafet mhm. nga ne nañ ko tourné mhm. bu ngeen commencé di ngeen xam fu ngeen di mais da di dem ba ci biir di ngeen am fu ngeen jëm. lu ngeen jot def ca. léegi nag Sénégal nekkum réew nekk réew moo xam ne dañuy jaay ko amut loxo dañ koy jaay ba jaay ko emay. waaye ko amutulee. dañ koy jaay ba jaay ko emay ndax seen njariñu bopp. nga génn ñu naan la toj nga télé bi. naan la yow nga xool lu gën a ñaaw lu gën a bon nga koy bind. Mhm. ngay wane ay nit ñu fóonante ci télé. Mhm. di wane ay nit ñoo xam ne seen yëre baaxul. Mhm. yaa ngi ciy am publicité yaa ngi ciy am xaalis yaa ngi génn ci mbedd mi di siiw. waaye bis boo amee juróom-ñaar fukki at ak juróom. say sët toog amal fitu nag. ne leen kaay leen ñu seetaanandoo na nga am fitu wax leen na leen nit am na droit def yaramu neen dem jouer ji dafa am loo xam ne wuru wuru. lépp loo xam ne ñaaw na ci suñu société. Mhm. nañ ko def film def ko théâtre wax ko ndax mu soppi. Mhm. ndax mu soppeeku. Mhm. muy nit kuy muy nit muy nit kuy jiite. muy nit kuy kuy kuy kuy muy nit kuy wuruj muy nit kuy kuy mbubboo diine di def dara. waaye ca defin ba la. théâtre métier la. mais li ñuy wane ci théâtre télé bi du théâtre film la. écriture cinématographique métier la. nañu dem bu ñu ko bëggee def ñu jàngi mais da ngay nekk comédien tey xëy suba nekk metteur en xëy suba nekk réalisateur. ndax bokk nga ci benn benn série nga mu tourné ko nga gis xaalis ba nan ca toll moo tax loo gis série bi télé bi suba télé bi suba télé bi ndax nga ngay wut xaalis kuy wut xaalis nag moom wutul wutul wutul euh, plan de succès la am amul plan de carrière donc problème bi ñu am daal aujourd'hui mooy li Baye Lamane doon wax léegi li Alaaji Lamane Mbaye doon wax euh, nan la ñuy formé ci métier création maa ngi gis tey benn annonce boo xam ne ACP ñu ngi jël vingt six millions de dollars ne dañ ko bëgg dóoru di mooy baal leen ma ne dañ ko bëgg a jox ñi nga xam ne ñoo nekk ci pays ACP yi ci lañ bokk pour ñu ñuy créer emploi ci culture léegi tey ñan ñoo pare ci ñun pour créer emploi ci culture donc je pense que am nañ problème nañu dugg série yi ku bëgg a def série yu trois cent épisodes da ngay jël scénariste nga fay ko scénariste bi day jël ay dialoguiste mu fay leen ñoo xam ne bind dialogue rek mooy seen métier ñooñu buñ pare ñu am show lay koo xam ne moom qualité film bi rek lay toppandoo réalisateur bi def réalisation caméraman bi yem ci caméraam preneur de son jël ci preneur de son mhm. mais da man fi ma nekk ci SODAV e mhm. commission d'identification audiovisuelle laa bokk mhm. depuis presque dix ans waaye da ngay gis film boo xam ne réalisateur euh, euh, euh, Lamane Mbaye scénariste Lamane Mbaye preneur de son Lamane Mbaye caméraman Lamane Mbaye benn nit yàlla sax ba mu sàkkee nit ñi ba pare pour jox ñu pour jox ñu misaal dafa jël ay yonent yónne yu ne lii bàyyi naa ko nii jël ay malaaka léegi yow yow yaay yàlla yaay yonent bi yaay buur yaay bind yaay réalisateur te ñun ñu ci bëri nag yenn saa yi sax ñooy joué lu doy doy war lawal artiste la moom xam naa am na ci fii li xam nga xam nga li li li Massamba di wax mooy li ñu delloo si ci formation rek gis nga formation lu mu bokkul du baax jàngul tari ay nar la dañ koy wax bis bu nekk te tamit euh, aw yoon ku ci bokkuloon doo ko mën a nettali euh, il faut que ñu former nit ñi waaye xam nga léeg-léeg nga seetaan ñun bi ñu nekkee gëñee nekk xale am na benn publicité bu daan daw ci ci ci télé bi du ma tudd tur bi ndax booba euh, lu ñu daan naan la loo xam ni bu ñu daan dokkoor moom la ñuy naan mais bu ñu dee teg ci télé yi heure d'écoute boo xam ni vingt heures ñëpp a ngi seetaan mu daal di wane benn américain mu sol benn ensemble jean sol benn chapeau. dégg nga maam ñu daan ni américain liggéey la fonk mu ñaqatoo xeb ci wet gi ñu teg benn sénégalais mu tëdd ci njoowaan géwél bi daal di yor dégg nga xalam gi ñu ni sénégalais bu namee noppalu nangam lay naan xam nga loolu di ko wone chaque vingt heures nit ñi di ko gis mooy li boo doon wax sànq quoique am na ay choix yoo xam ne boo ko dee def war nga xam kii bind war nga xam ki koy ki ki koy defar war nga xam ki koy joué donc lenn lu ci nekk dafa am ku ko moom la division sociale du travail sax dafa amoon suñu société kenn ku ne am na pàcc boo xam ne yaa ko moom léegi loolu bu ko respecté yaakaar naa ni mun nañu dem ba am société boo xam ni dana équilibré téléfilm yi ñuy seetaan am na ci yoo xam ne xoolal weer koor gi dafay mel ni dañ naan dañuy saboté finalement nit ñoo xam ne dañuy julli ba càng gis ñuy rek mais c'est du n'importe quoi bis bu nekk maa ngi moom nu waxtaan ci ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen yooyu yëpp li koy indi rek mooy ñàkk xam ak ñàkk jàng ñàkk xam nag mën naa indi lu nekk. te am na arme boo xam ne lu mel ni télévision lu mel ni média arme la boo xam ne dafa am doole képp ku koy yor wala ñu. nit la koo xam ne war naa nite war naa équilibré wu pour société bi mun a dem ci kanam. solo soxna Ndeye Fatou na laata ñuy dem ci fa tey nag xam naa ne wax moom xam naa seen domaine la. muy wàllu théâtre man de doon naa rafetlu ñu fi jotoon a yàgg comme njëkk yi baara yu mooy waa sëñ bi ay buuru këram loolu chef d'œuvre la maa ngi ñu koy publier ak gis théâtre bi ñu defoon ci Lat Joor boobu macha allah chaque année RTS da ko doon tegaat xaw na pour ñaaxat dañooy nouvelle bi jamonoy tey ak ñoom tonton Tafa Diop ma koy nuyu bu troupe bi nga xamante ne daaray Kocc mu ngi noonu yooyu chef d'œuvre de chef d'œuvre ñoom bu ma paree suñu parce que li ma gis xamatuma ko théâtre dóor dàqante comme ni ko euh, docteur Massamba dagg saaga ci biir loolu pour ci société sénégalaise waaye li ko fi indi du am na leen duggee fu ne buñ duggee ci doxul ci animation doxul ñu dugg ci théâtre loolu rek a fi am naat ñu tey par force ndax ma am ci tur parce que am na si ñoo xam ne am tur business la si ñoom tur boobu dafa am lu mu di jural lu ñu ciy di ko ci dund ñoo ko xam moom la ñoom Sall ñoom la engagé mais yéen ñoo war ngeen xoolaat bu baax le milieu théâtral surtout durant le ramadan dañoo jël sax weeru koor caricaturé ko série di ko tegle di ko tegle ba c'est chiant parce que weeru koor moment de jaamu yàlla la loolu moo ko tax a jóg avant tout ba nekk di ci man daal li daal sénégalais lu mu dugg lu ëpp sénégalais moom loxoom rek daf ca lu sa waru vraiment war nañu xoolaat li ne mooy théâtre yi ak série yi nga xam ne tendance télé bu nekk bëgg a def série maanaam télévision bi toppandoo gi roy bàq bi lañu war a jéem a arrêté tuuti te théâtre bi moom fi mu nii pëcc xoolal macha allah doon na waar lool <laughs> doon na waar lool yéen ne moom ndaw si fekkee rek ne ma waa fekkee ba wal fa ne ma dama laa bëgg zélo ab théâtre bu def na ci benn série ndaat xam loolu <laughs> ma xam loolu mu wax mu juddoo jàng lu ñuy jouer théâtre du ma comédien nekkaani ma comédien donc jouer théâtre bi sama mbir demal nga seeti ñu koy def ñoom boo demee ñu defal la ko te dina sedd soxal ñu jàll kon ci li nga xam ne nii moom mooy photo yi Euh, dore ko ci docteur Massamba toujours bu ko defee a woon photo euh, léegi nañ ko kooku waaw kooku de man dama koy yàq xam. Hmm. ndax dama dem ba université ñu jox ma devoir ci histoire Sénégal première année xaw ma taarixu Sénégal. mu ne ku ko bëgg xam na nga dem seeti waa kër Leyti Gissé. Hmm. te Leyti Gissé moo jur Lóoru Gissé Lóoru Gissé moo ma jur. waaw ma taxaw nag ne man jàng naa chanson de Roland ba xam histoire de France ndekete man sama maam dañ koy cité biir université ca laa dëkk nag man xam ne am naa sas ci Sénégal mooy jàng sama bopp jàng sama cosaan léegi lan ko lan ko du tur la muy ministre chargé de la communication ci ci nguur gi léegi nag boo ko déggee turu pël la gisee sant pël la kon Fuuta la jógee waaye soxnaam Fatou moom labba ko jur labba mooy taawu Samba Kumba Kalaado dafa am taaw tuddee ko Lat Joor ndax moo doon ànd ak Lat Joor moom moo fent ñaan yi man foofu laa bokk kon layti moomu nag nga xam ne lu ma am ci teraanga tey lu ma wax mooma sama ndey def na ne bu may nekk xale bu ko nit ñi daan ñëw di jàng si euh, ci moom xam-xam du ma jox tur ndax bari na fi ñoo xam ne tey ci moom lañ jaar ñoom dañ daan wax ne euh, layti moomu da daan uf ay sëtam di wax. kon mu kooku moo ñu defar. mooy suñu lépp mooy ngënoom lañ yor. te bëgguñu ko yàq te bëgguñu ko fekk barsàq durus. macha allah eh, bu ko defee ñu tegal la ci euh, euh, Ibrahima Mbaye Sopé. waaw Ibrahima Mbaye Sopé kooku damay damay wax ne ci kooku ku fekk loxoom ci poos bu ko tëj man ngay jàpp nga tëj Ibrahima ndax lu mu def maa ko sant lu mu ko tere mu bàyyi. ndax nit bu demee ba war a takk jabar woole ne la damaa war a takk diw loo ci xalaat deseetu la dara. kon Ibrahima Mbaye Sopé moom dama ne képp ku ko fekk muy def lu bon moom bu ko atte ñëwal nga atte mu man ndax lu ne maa ko ko sant waaw lu mu wax maa ko wax lu mu def maa ko sant ndax loola foofu la ma teg te man foofu laa ko jàppee mu dem ci Lamane Lamane moom bu ñu koy laaj dañ koy laaj ku sori te te ci moom muy euh, euh, Lat Dior Diop ñu doon laajte ah boo ko qualifié moom. Euh, yaa ngi may laaj koo xam ni Sénégal ak àddina dañ koy ameel njukkal. bu ko Massamba waxee sànq day maam ci moom ndax Sàmba Kumba Kalaadu Lat Joor nag nekk koo xam ni euh, saaxewar soxna Mbaye ko jur mënul saaxewar saaxewar faat ma ku ko du ngay ndow liggéey ju moo nga dem xol sambañ ba mbañ jaane leel fay gànn kunu kunu jaane gan njaan bardaagu geddo geet njaajaan njaay abo dar mu ñibbi jolof muy koo xam ni euh, bi nga xamee ni dem na ba lépp jeex dafa tàllal ay loxoom xaadimal Moustapha mu wax ko wax ju rëy ba fee mu tëdd tey jii Sëriñ Tuubaa la mujj gisal kon kooku yaakaar naa ni ba ñu dem hymne de la jeunesse ñu ne ñaani loolu yaakaar naa ni kooku amel nañ ko njukkal loo xam ni te it muy exemple ndax fukki at ak juróom-ñeent ak fukki at ak juróom-ñaar la jëkk dégg barget def li mu def lépp yaakaar naa ci ay at kon ñun xaaruñu Corneille pour xam ni aux ambiennes la valeur na temporelle mu des années muy exemple. ma cité leen ak seen président kooku nag mooy doomi ndaat mbay mi nga xam ne moog ummi ak Fatou Mbaye Dégén ñoo bokk ndey ak baay kooku moo bàyyi ko nguraan mhm. waaye nag moo dëkk ndaat mhm. ndaat mooy dëkku njëkk dee yi nga xam ni li ko tàmbalee ci euh, décee fu njóogu mi nga xam ne laman la woon mhm. amari ngoone sobel masamba tàkko ma xuruja kuli biram bang xuruja kuli daw demba xuruja kuli damel maajoor xaali njaay sàll ma xuruja jooy juuf biram bend ci lor ba bi ngay egg ci lat kooku maam ju ma boogee bu tëggee boogee société maam ju mu am historien la nga xam ne joué na ci histoire loo xam ne lu rëy la waaye maa ngi Massamba Gueye nag mu nekk suñu nijaay nekk koo xam ne moom itam lépp def na ci lu rëy fii à travers le Sénégal et et le monde. macha ah, mooy la ki nga xam ne bu ñëwee Fuuta moo génn lépp li nga xam ni parce que boo ma see dégg Euh, jàmbaar ci pulaar jaasi lañ koy xamee ak safara ak fetal waaye kooku bi mu ñëwee le sama maam Samba Jabare kooku moo indi lislaam bi nga xam ni daanaka léegi kenn xoolatul borom juddu waaye dañ ko féetale ñi nga xam ni alxuraan dong lañ topp ak diine Thierno Souleymane Baal mooy ki nga xam ne révolution torodo moo ko def 1767 nekk jàmbaar joo xam ni Sénégal dootu ko fàtte forme de gouvernance bi ngay dégg tey ñuy wax naan euh, dañoo war a gouverner dégg nga maam ak lépp loo xam ni dafa war a set dafa w a sell Thierno Souleymane Baal moo xam yaakaar naa Ndeye Fatou day gudd waaye jàmbaar ngoo xam ne ji Fuuta joué na lu rëy rëy rëy. xam naa ne. ayca. waaw waaw El Hadj Mansour mooy ki a doon ndax El ñeent jikko la am jikko ji njëkk ji euh, mooy jikkoy pakk ñun ngelaw bu ko yóbbu ñun du xob xam ne lu ñuy yóbbu ko El Hadj Mansour dafa am beneen jikko mu jikko ji gën am solo mu jikkoy gor. ñu ne ñàkk bu ko yóbbu alal bu ko yóbbu mu am beneen jikko boo xam ne moo neex ñëpp muy kàddu ñun xam na ne làmmiñ dafa nekk ci ñaari barrière barrière pour ak barrière barrière bëñ ba làmmiñam lu ci génn ay yiw leneen li ci topp nag te moom nag ci alaaji Maasu Mbay mooy day taalibu cheikh boo xam ne bu ci dara am fu mu ko xam mooy kan ba nag boole Sénégal boole nit ñi di jël tànkam guddi di dox di defar keroog ba mu toogee ba xam ne ay adam weesu na ko daf ne dootuma def benn émission ci télé bi boo xam ne day day def folklore weesu naa ko léegi lu ma nit gisati ci diini la mu gis waaye nag bëri na ni mu teral ndax moog Samba Jabare Samb fukki at ak juróom nañ bokk lal di ci tëdd mu may ko jarbaatam ko yàlla weddi kooku génn àdduna mu jël jarbaatam jox ko ko mooy ci nga xam ne moo teñu Samba Jabare Samb kooku mooy El Hadj Mansour Mbaye ñu ñaan mu <laughs> mm. ko defee nag ñu bàyyi kon docteur la man mu tàggoo rek waaw xanaa euh, kontaanaat euh, ci ndaje bi nga xam ni am na euh, diggante professeur Massamba Guèye ak man ak yéen ndax damay wax toujours ni aw yoon ku ca bokkuloon doo ko mën a nett lii ca li nu wax jàng ko dana koo donn mm-hmm. donn nag dafa soor ndax daf may wax toujours ni ma ñun dañoo am ñaari légitimité légitimité académique mooy diplôme yi nga xam ne def nañ ko ba yegg doctorat waaye beneen légitimité bi nag mooy légitimité ADN mooy deret ji nga xam ne mooy daw ci suñu yaram te ku nu yeewoon guddi li ñuy wax fii ci plateau bi boo nu yeen wax ko loolu yaakaar naa mooy cosaan ndax jinax li muy bëtte am ñett kenn du ko seetlu dégg loolu defe naa ndono la. ah ci lu ci bu wér kay. ñu jox docteur te bañ ca jaaraat ndax li wax maa ko wax euh, di wax rek coronavirus bi yàlla bu mu am ndam ci Sénégal képp ku ko yéene mu am ndam. Mhm. yàlla na nga ànd ak ñun génn réew mi te bul dee. boo tukkee yàlla nga fàtte Sénégal. Euh, na nit yi te bàyyi dof yi. Mhm. dof yi wax ak fëgg dënn ngir wut xaalis. Mhm. ñoom ñëpp jàpp tëj ci kaso ba coronavirus dem ñu soog leen a génne. Ndeye <laughs> la nga yooyu. ah kontaan vraiment papa euh, ak ñoo xam ne macha allah ay garmi lañ garmi day wax ci dal xam la ci dal joxe ci dal te la ñu la muy joxe ci xol lay jóge te lu jóge ci xol lay jóge ci kon nag kontaan naa lool ci toogoon ak ñaari docteurs yi macha allah. man ngi noonu laa amee mbégte. Mm-hmm. Eh, ndax eh, xam nga tey macha allah damay seet ñu ko yor kare ak kii na ci tableau bi la jàngal. Mm-hmm. wax dëgg yàlla eh, loolu moo sax muy commencé jàngal la te naxu la. waaw mm-hmm. kay ñàkk ki la ñàkk nax mooy ci la teg ci woon fii moom ku la yarul rek ku ne nax na la ak ku mënti doon nag. muy sa ndey jula juróog sa daay jula juróog kala jàngal ak sëriñu daara baag ñëpp ci bokk yoon mais daf ñu jàngal te naxuñu macha allah te mu ci yoon bu baax a baax a baax euh, bokk na ci professeur bi élève gënal di moolu bu gën gën di parce que xam naa bu baax li ma wax nga xam moroomu élève am waaye bu ëllëgee foo tasee moom xam ne euh, defal na la loo xam ne nii macha allah ca kanam nga koy xam euh, foo ci dem muy TFM bi mu nekk moom dafa servir ay doomu moo fa nekk ak ñoo xam ne moo leen jàngal macha allah moo leen formé loolu moom lu lu kii la comme ci kasar ku ne wax rek man moom léegi nijaay laay wax quoi nijaay mas wala wala mas waaw laman it macha allah ni ma ko waxee ci ci tàmbali bi moom itam waaw laman moom itam euh, macha waaw waaw alaaji la woon alaaji xam naa bu déwénee jàmm incha allah yow di nga di nga bu déwénee yàlla bu coronavirus am déet booy nga mën a am yéen a waaw waaw coronavirus bi moom tere ndax waajoon naa ni ba semaine francophonie fa laa waroon nekk ba cosaan waaye nag yàlla baax na tukki avion bi sàmm jàmm la waaw macha allah macha allah yàlla suñu borom boole leen sàmm voilà boole leen vraiment dëgëral ndax seen yàgg ci réew mi am na njëriñ la macha allah euh, Ndeye Fatou ñu sant la gërëm la baax yow itam macha allah lu ñu ne dem cay ne te loolu Euh, bu ñu am complexe di ko wax ni ñu koy waxee saa bu nekk. Mm-hmm. Euh, maa ngi sant di gërëm bu baax Fouta euh, Couture suñu xarit dafa nekk moo ñu defal teranga ji te féetee ñu ko fan di sant di gërëm bu baax El Hadj Saliou Bey mooy le chef caméraman di le réalisateur di gërëm bu baax suñu frère bii di Pape Modou ak sëñ Amdi Sidibé mooy le preneur de son waaye itam di gërëm di sant bu baax Barab Mbay mooy suñu monteur bu ñu demee ci sonn bu baax a baax xanaa di leen sant di leen gërëm yéen itam Euh, fépp incha allah àllarba bii di ñëw daal di dellusiwaat indi leen beneen ba tey waxtaanee lu soxal réewum Sénégal jaa ngeen jëf